ci ruq yeeg ruq-ruqaat yëpp bi ci jiitu nag mooy saytaane Aida Diallo saytaane Aida Diallo bi nga xamante ni bii saytaane moo ko yebal wax naa leen ni Musaylamatul Kaddaab ak ñu mel ni moom ñëpp Aida nag da ciy kenn rek waaye juróomi at ginnaaw bu ngeen dee seetaan Saxum Touba waxoon naa ko télévision ba noonu naa leen maa ngi bind di gëstu ni renseignement généraux yi def laay def amul lenn lu may rëcc fi mu ndax am na fu nekk am naa fa lu ma fa mën a xam te loolu maa ngi koy bind lii xamoon ngi ñëw alerte woon naa ku mën a dellu nga seetuwaat YouTube bi xool waxtaan yi ma ko te dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw waxoon naa leen Aïda Diallo amul amul mbokk mu am fitu amul mbokk mu am fitu dajeeg benn Baye Fall bi benn murit bi gën a ñàkk fayda mu muy muy wax yow amul amul fitam li am mooy am na loo xamante ni bi jéem nañ koo fital wut nag ñoo xam dañuy tuddoo diine ñu ngembee ko ko mu musóoroo ko woddoo ko muy Saliou Samb ak Mbow moomu ak ñi mel ni moom su ko defee nag moom ci boppam ñooñu moom dañ koy wax ci diine loo xam ne ginnaaw xamul diine loola moom ci lay sukkandiku ba noppi nag sukkandiku ci yaakaar ne loo xam am na ñu am doole adduna joo xam mën nañ koo gebb ba tax na mu yëngal dara ci yoonu sëriñ bi foofu li ma leen fi wax waxoon naa ko démb mooy wallahi alazim wallahi alazim billahi wallahi saytaane bu ñu ko doon léegi bis ni ki tey sa bu demati ci kenn Sëriñ Tuubaa ak ñooñam ñi mu yor njabatum yépp yamal ci moom sab liggéey na yem foofu wallahi alazim ba addunay tukki lu toll ni tarfata ay nin mun a yàq liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi wallahi alazim billahi wallahi tallahi billahi la wax mu duñ koo yàq kon loolu na ci xel dal bu baax a baax waaye nag am na loo xam ni dama cee dellu ci sama jàmbar ji moomu ciy dimbali léegi toog ci sab saal naan sa attaaya wala sa café yaa xam taalu bi nga xam koo ma doon ñu la ngay waxtaan sëñ bi di lépp mën na ko fajal boppam ah sëñ bi déglu leen ma ki ko doon wax muy sëñ Abdul Ahad sax def na fii zaahir loo xamante ni bii kenn mosu ko def sëriñ Abdul Ahad li mu wax leen ma fu mu mas a jëfandikoo baatin amul fa fu fu mu mas a jëfandikoo baatin ci ginnaaw lu yàgg-yàgg loo xam boobu kenn xamu ko wax leen ma ko lépp zahir la jëfandikoo fii la taxaw ci tuubaa am na fi ay mbooloo yoo xam dafa sosu woon sëñ Abdoulaye tas ko tasat te ba mu koy tas zahir la jëfandikoo ndax dafa woo dafa woo état bi mu ñëw ñu tas ko ñaata yoon la sëñ Abdoulaye def lu mel noonu bi muy raxas Touba gi ak li mu def ñaata yoon ndax kon sëñ Abdoulaye lu tax toogul ni ah sëñ Touba de mooy sama waajur mooy sama sëriñ te mën naa lijjanti lépp naa toog fii rek doon xalifa sëñ Touba musu ko def dafa jóg taxaw faj ko loola jeex fa tàkk lii moo am te ñun ñëpp histoire lu ko récolté tuuti man mën nga ko mën nga ko xool kon li ma bëgg wax foofu ñay toog ca seenub saal laa wax di wax nan lii jël son sëñ mën na koo faj man bu ma doxoon ba dara sotti wala keneen ku mën a doon ba dara sotti waa dëgg la sëriñ bi ci boppam dafa am ay wasila am fu mu koy jaarale waaye sëñ bi moo ko faj amul kenn ku am loo xam ne doole la wala alal joo xam noppee man nga ni man na man dong wala maa ko def déedéet sëñ moo jaarale mbir ma foofa ca tolluwaayu kooka mu jaarale ca loola ba loola faju waaye kenn ku mën a ni bu kon lu fi faj sëñ Tuubaa faj moo ko fayal boppam yàlla teew nag am fu mu jaar kon li ma bëgg wax foofu ci gàttal ci tënk rek mooy nan bàyyi lii nu nekkee toog jàpp suñu njàmbur banque suñu loxo nan àdduna bi lii nangam nangam aaxiru zaman la sëñ bi nee na lii sëñ bi waxul loolu den sëñ bi luy jël bakkan rek luy lu lu war a jël ba lépp luy tilimal islam te war a jël bakkan rek sëñ Tuubaa jaar na ci lépp loo xam ni mën a mën naa tilimal islam te war a jël bakkan sëñ Tuubaa jaar na ci loolu gis ngeen ko ay yoon yoon yoon bu ma fi nekkoon di wax ci loolu daanaka lii ma bëgg wax sax du egg tey lima ma denc dafa bari lol dama ni serigne bi lépp fu mu jaar fep fenn fu ci nek jël jël na bakkan te l'islam tax mu jaar fa kon suñ togi fi di wax war na no xol bax muy kum meuna don kilifa go meuna don ak kula lo jaamu jaamu yàlla jaamu yàlla nokoy def ñun ñëpp noo jaamu yàlla noo ngi jàng alcorane noo ngi jàng qasayd noo ngi joxe addi liñ mat lépp ñu koy def ñëpp yam nak nag ñu koy def ñëpp kon dafa am leneen lo xamni fa la ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa habli ladina qad taallaqu bi yahudan bihi li khayrin nu هب لي وللذين قد تعلقوا بي هدى به لخير نطقوا جامونو جي لن سنتو با سخنا يونو مريد ميغي ميغي ام غاتي غاتي جي نين خام نين ньоكو يانو دي سيرنو ابراهيم يانو كو دي شيخانتي يانو كو دي سيغ بالا تشور يانو كو دي سيغ افي يانو كو دي مام شيخ يانو كو دي سيغ ساجين يانو كو دي سيغ مسجد جاخت سيغ جيري جاخت يانو كو دي جاي يانو كو دي كين يانو كو تي مي بوجي كين يانو تي غاتي نون ني يانو يانو كو غاتي ньоم نييب غاتي tey lii xew nii ci jamono ci yoru murit laa leen wax wax leen ma kenn ku nekk ñi ma tudd ñëpp ak ñeneen ngeen jégal ma ñi ma mënut a tudd ndax bu leen tudd fe la ñuy faral Cheikh Sëñ Tuubaa yi bokk yeeg ñëpp wax leen ma tey kenn ku ci nekk koo xam ne lu toll ni toll sëñ Mbaye Sarr taxaw na fii ci njaarim saaga tubaab bi daggal koo te booba saaga tubaab ba ko jafe déet seen tubaab sax di taxaw moo jafe woon tubaab lañ ko saaga kon noonu lenn war noo yéem lenn war noo tiital nu toog fii tey li nu am nu am ko yaakaar ne nu yaakaar gëm li nu gëm ba noppi toog am luy xew nu toog mel ni du duñ ay doomu adama ndax yaakaar sëñ Tuubaa ba noppi bëgg koo layale lenn déedéet loolu dëgg kon loolu dañ ko ba ndaw sii rek di ay da laa wax dinaa ci dellu si tuuti benn dinañ leen dugalal benn vidéo boo xam ne bokkul ak li may wax yàgg na ba fi Cheikh Béthio nekkee la dinaa ko baa mu wadde sëñ Abdoulaye jaxum ba nekk ca daara soxna jaara ca Porokhane moom a woo fekk may bëgg a yéeg ci kaw di def waxtaan Saxum Touba ca télévision ba mu woo ma téléphone jamono yu bu dugg sax du ma waaye damaa woo ma xam ne moom la ma wuyu ko mu ne ma ah yëg nga li xew a ma ne ko lu mu doon mu ne ma day sabétu dafa seexal benn soxnaam boo xam ne ay da lañ ko wax ñu ngi sukk ci kanam di ko raam naan ko yaay ko tedd ki ma ne ko ngari lan mu ne ma lii dee am xaw ma yëg nga ko déet ma ne ko coupéel ba ma yëgee ca waxtaan ca émission boobu daan jeex dinaa indi illustration loolu dinaa ko delloo soit ngeen seen ko nii jamono yooyu fa saase laa daal di interpeller ñëpp gendarmerie sax woo naa leen ak police képp ku di taalu ñëpp laa la nation ni Cheikh Bass yow Cheikh Baara Matalaye mu doom sëñ Cheikh seigne Cheikh bo seigne Sidi Muxtaar mo fi nek Cheikh Ndiaye Cheikh ñepp la wo ñom ñepp ni leen yere ngi fofu minute waratu leen ko tok ci seigne bi yëgul lii dafa war a dal na ñun ñepp nañ jóg ba ma ko waxee ca guddi googa émission bi 10 h la jeex suma ma wala 11 h seigne Sidi Muxtaar jot na ci ci guddigu la wo Cheikh Bass immédiatement ñu wo kin Béthio ko woyé mom ci guddigu la def la la jégalu yemale ko ci ci réseaux sociaux yi ci suba ba mu dem ci Sen TV ba mu demee ci sëñ bi jégalu ni moom waxul ku kuy tuddati Cheikh na nga ko ci génne joxu la ci ndigal joxu ci tey kon Aida Diallo mii bu fekkee ni moom gëm na beccu ci li muy wax te dëgg la ci moom kon boobu la waroon a bàyyi loola beneen ba topp yemu ca dani man sama ceexu bopp sax mën naa ko teg fi suuf loola mi ngi fii ñëpp nañ ko seetaan de dugal naa ko saxum tuba ñu toog ba léegi mun leen bëgg na ni gëm na gëm na Cheikh Béthio Aida Diallo est-ce que rus nga sëñ Tuba sëriñ Tuba li mu ñaan habli walilladina qad taallaqu bi hudan bihi li xayrin mutlaqu yàlla may nu njub goo xam ne ñun ci la ñuy devancer ñun ñëpp ñun taalibe yi ñun ñëpp sëntuwaa Tuubaa dañuy moom da cee boole boppam may ma ak njub mayaale ko ñi aju ci man ñëpp njub goo xam ni ci la ñuy rawee ñëpp ci la ñuy jiitoo ñëpp bii bii bi xayrin mutlaqu loolu sëñ Tuubaa ñaan te nu am ko nga wëlbatiku nag maanaam yéen ñi topp ay Diallo mu wér leen ni am na ci loo xam ne leer ak noonu def nañ suñu xam yëpp xërëm yi ñu def ak dem ba end di liggéey nit ñi ba tax na ndax nan ngay gisee koo xam ne fa am na ñeent fukki taxaw sukk ci kanam ndaw sii mu toog di waxi naq sa xandang ngay raam ba mel ni àndu sa sago lépp day xërëm lépp day xërëm ngeen bëgg ko nag laafee Serigne Touba nag def ko ba noppi tuddoo Serigne Touba wala ni ay taalibe dañoo yaakaar Serigne Touba guddeeg bëccëg laa la wax nan ngeen di mën a imaginer waxuma sax góor waaye jigéen ñi yow rek yow amul lenn loo xam ne ji mën naa tax ni lii moom laa la toppee waaye benn laa bëgg man ak yéen ñun ñëpp sëñ Tuubaa lañ yaakaar doomi sëñ taw Tuubaa yaa ngi fi woon Cheikh saa ngi fi woon kenn ku ci nekk am nga wasila kuy sa sëriñ nga nga jokk ci moom kenn ku ne am nga wasila waaw wasila woowu nga topp ci moom ndax di nga dem a dem dem dem ba mu gënal la sëñ Tuubaa ndax di nga dem ba bëgg a topp ay ndigal ki sa sëriñ bi nga ne moom nga yaakaar comme li ma boo wax Aïda Diallo ñii ànd ak moom ndax yéen di ngeen dem ba waxuma sax Aïda waaye nga nga toog ci kanam jigéen dem ba teree sëriñ Tuubaa ak digle sëriñ Tuubaa nanguwoo digle sëñ Tuubaa di def tere sëñ te jigéen tax di ko def ana loolu noo koy tekkee barki dem sëriñ Mountakha woowu la fii nga toog mu wax la li mu la wax ba ni ca sën ba tere la lii digal la lii nga lànk yow mi ko topp nag te ni sëñ Tuubaa laa yaakaar maanaam bu dee fukk ak juróom a dox sa diggante ak sëñ ndax mën nga tànn kenn koo xam ne mën naa dem nag ba gënal la sëñ Tuubaa kon yéen Aïda moo leen gënal sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa jëlale naa ko waaye kii ko fi nekkal léegi rek ñu di ko ko xoole yàlla na fi yàgg tubir moom ay ndigalam mooy ndigali sëñ Tuubaa kon nan ngay mën a bàyyee ndigali sëñ Mountakha di jëfi tere yoo xam ne la koy tere nga ko jëf te beneen jëmm tax nga di ko jëf ba noppi di tuddoo Serigne Touba loolu na ko na ko nit mën a dégg ban entendement te loolu yemul ci ay de am na ci ñu bari ñoo xamante ne bi waaye moom mooy ki nga xam ne fi ñu toll dafa war a dëkk loolu bëggoon naa ñu bàyyi xel beneen bi ci des mooy yow li nga xam ne mooy Saint-Valentin muy feet googu ñu wax ni ñi bëggante ñoo koy feet nga ni da koy anniversaire at waxtu woowu la seexal li tax nga xam ne gëmul Cheikh Béthio waxuma sëñ Saliou de jëlale naa ko ak sëñ Cheikh Saliou waxaaliwuma leen waaye yow bu fekkee nit ànd ak moom ba jóge fi yàlla def mu jóge fi at dellu si xanaa war ngaa toog ñu woor jàngi alxuraan jàngi xasaayit kenn bañ a dégg ngeen def dara ngeen ne nañ ko ñaanal waaye nga toog yow ni da ngay feet Saint Valentin yow wut ay nit ñuy fecc ak seen rob ak ay bale yoo xam ne lépp ci xirim yi la bopp ay bale ci biir yéen a ngi koy gis YouTube bi lépp nga xam ne bokk na ci xirim yi ñu leen joxaale ngeen di ko jëfandikoo wëlbatiku nag taxaw léegi yow ñaanaloo cheikh béthio sa xol dawul sa yaram daw yeen ñepp ngeen andi tudd yalla di jang xasse jang alquran ni dañ koy ñaanal boobu ba legi teggo sa tànk ci barab ba dem ngeen ba madinatu salam ngeen wut fa ben barab bo xamni fa lañ ko woron denc moom ngeen di siaré mu don don xërem legi té lool yépp man nañ ko génn ngeen gis ko li lepp nak du ay jallu man xam ay dal wala turu sax wala xam jëmuñ sax toppatewuma lool li ñuy wax li tax ñuy di wax li moy tuddo gi ngay tuddo yoonu murid di jël li nga xam ne mooy matériel loo murit di ko jëfandikoo bis boo mënee taxaw ci télévision bi ñëpp woo presse bi ni leen bis ni ki tey maa ngi doxal samay dox lu ma neex laay def waaye bëkkatuma ci yoon murit bu boobaa yaa xam waaye nag bis ni ki tey moom Serigne Touba da koy bàyyi teg ko fi suuf ak xasida yi lépp Zeyda ndaw soo suñuy wax rek naan dafa dafa dafa moom jamono fi fi woote bërki dem rek ni ab yonente la tarixatul laayeen dañoo jóg benn yoon rek lañu wax ndaw sa déggatoo ko yaayam tuub mu tuub loola fa saase yow nag yow boobu ba léegi ñaata yoon maanaam manque respect Serigne Mountakha Mbacké bëgg bëgg bëgg bëgg gàcceel ñëpp manque respect Serigne Mountakha Mbacké benn xalifa bu mu mës a jaar boo xam ni Serigne Abdou Lahad lenn lu nekk ku fi mës a ku ne lenn lu mës a mel nii amul di waxantuma laaj du góor de du mbooloo du góor du mbooloo benn jigéen la benn seytaane boo xam ne saytaane dugg na ci moom mu ànd ak i bokki saytaanam jox Saliou Samb nga yow nga nekk fee mbaw nekk ca wet ngeen wëlbati bëgg a tax wallaahi al azim barke dem billaahi duñ ci xoolal bu leen defee ni da ngeen am ampleur wala benn puissance boo xam ni même bu fekkee ni ay lobby mi ngi seen ginnaaw même bu fekkee ni ay lobby tey nan la waxoon na ko du Amérique fu dëkk boo yaakaar bu nekkee sa ginnaaw jàppal ni wallaahi alazim fii ngeen di xamee Serigne Touba lii day dakk léegi te lépp la leen jaral rek du ko tax yoonu murid xajul ci dëkk yoonu murid xajul ci état bu fekkoon ne état nga xam yoonu murid mooy lan kon du ma fi wëlbiku naan la yoonu seen bakk déedéet wallaahi alazim dañ koy faj dañ koy faj léegi bu jeex léegi dañ koy fet faj gi nag santal Mbàkke na sëñ Tuubaa di di di di sa waajur na ko sëñ Tuubaa di waajuram comme mën a doon santal Buso santal comme doonal Cheikh yaa koo mën a doon ñëpp la ñu interpellé ñëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku nekk am nga bëkk néeg boo xam ne nga sa buntu néeg fi ñu toll nii yaa ngi naan ataay di naan kafe yaa ngi am bëkk néeg bu ne sa buntu néeg yaa ngi naan ataay di naan kafe waxuma mbooloo ma sax ñi fi ñi fi ñi fi woote ay journée culturelle ana ñu ñi fi woote ay journée culturelle ñëpp waxuma ni def leen li ngeen def jaaduwul dama ni tey lii lii moo wata woote nag tey moo woote ko ku woote ak cant wala leneen bërki dem nee naa la fii Saint-Valentin mu def li mu taxaw nit ñëpp dégg ko ba muy tàmbali sax santul sëñ bi de am na ñeneen ñu tudd kilifa yi adduna jëkk sant mu ngi ci YouTube bi bi muy tàmbali santul sëñ Tuubaa tuddul sëñ bi tuddul sëñ kilifa yi diine la jëkk kilifa yi adduna la sant keroog dem leen ñu xool mu Saint-Valentin bi mu def te li li ci gën a war mooy ba mu koy def poroxaan la jóge nee na ànd ak i complice yoo xam ne kenn bëgg leen a gis mu dugg biir Porokhane génn Porokhane delluwaat de def Saint-Valentin boobu li ma leen di laaj soxna Jaaratullaahi bu suuf moom yàlla sëñ bi yàlla dara du hasard saytaane jàllu mii Aïda Jàllu mii ba muy dem Porokhane est que jàng na histoire yoonu murid est-ce que ñaan ñooñu ko ko encadré muy Saliou Samb ak ñeneen waxal nañ ko lan mooy histoire yoonu murid kan moo tudd Porokhane soxna Jaara soxna Jaara lu ko yóbbu lu ko yóbbu woon euh, Porokhane défendre l'islam défendre la cause de l'islam and ak mamour adustali ba def fa soxna jaara fam demon mom di sekk fekk seigne muntaxa ke fa teud ba tax ñepp di fa dem manam bañon lu ñaaw ci l'islam mo taxone bakkanam def fa fa la nekkon ñu and ak mabba di fa dem ba bakkanam fa fa dess ba ñepp di tay yalla fayé ko limu ko fayé yow nga joggé fa yow dem paraxan dem ngir tilimali ka nga fekki won mom da doon setal yow nga bëgg tilimali yow da do mëna tilimali xool leen bu baax li ma leen wax moom fi dara du hasard poroxaan gam demoon ba noppi di jigéen kam fa fekk kooka la tax mu dem fa Maba Jaxu ba mu wootee ànd ak nit diine yëpp ñu doon xeex ngir lislaam te lañ wëlbatikoo maam Mor Anta des fa nekk fa di jàngale ba far bakkanu maam maam maam Jaara des fa yow nag nga jóge ci àll ba yow dem fekki foofee nga xam ne sëñ Muntaxa fa la nekk di fa liggéeyal Sëriñ Tuubaa di fa liggéeyal yàlla yonent bi nekk fa ci soxna jaara nga dem fekk fa soxna jaara ngir tilimal lislaam wallahi lazim kenn mënu laa tee torox xanaa suba nga déglu yi tey ba arrêté tey tey tey may toppatawul loolu sax noonu toppatawul loolu yow ak koo àndal la wax wallahi lazim laa te lii day dakk lii du ay wax dootu dootul wax action la man la ma jëkk a ci biir Sénégal di ko liggéeyal seen mooy mut action ab la du ay wax waxoon naa ne du ma dem ci guerre communication ngeen nekk fi di tontu wala déedéet toppatawuma loolu wallahi lazim musoo gis ko la wax ak maa wax yow man Aïda Diallo yaa ko ànd ak yow danaa wax foofu tuuti interpellé ministre de l'intérieur wala moo wax ko bokk Aly Ngouille Ndiaye xamoon naa la ci taalibe de ba ma lay xam booba doo ministre yaa ngi nekk banque de l'habitat ma xam la ku baax foofu lañ xamante ba nga nekkee ndax mbay tànki àdduna ba léegi musumaa xam musumaa gisante ak yow tëggandiwuñ loxo ba nga tàmbalee nag takk ndox mbay àdduna ba léegi ak ba nga génnee foofu ba léegi musu ñoo xamante musu ñoo gisante am na nag loo xam ne te da ngay loo tuddoo loo xam ne ab taalibe ba noppi di taalibe bi kan ki fi nekk di xalif général des mourides Aly Ngouille Ndiaye lii lay wax lépp ci fraction de seconde mën nga ko régler ci fraction de seconde Aïda Diallo Touba dootu fi teg sa tànk Ngaabu dootu fi teg sa tànk mayatuñ la cant ci Dakar ak foo mën a dem mayatuñ la ko foo mën a nekk mayatuñ la ko wallaahi la la foo fekk taalib lañ la fekk billahi foo mën a taxaw la wax bis ni ki tey immédiatement la ñëpp nañ la fekk jàngal lu ñuy sante foo ko defee nañ la fekk jàngal lu ñuy sante man maa wax loolu appel bi dinaa leen wax bis bi lépp rassemblement bi foo mën a nekkati laa wax dinañ la wax ne dina la fa fekk mboolem taalib bi yëpp laa wax woon la nu ñuy sante ak kuy sant nu sante Touba waxaale wu ma ko moom waxuma la sant gi waaye sa parent du fi teg ak ngaabu ndakaaru fee fu la foo yaakaar ne Cees ak fa loolu moom say ma ko arrêté immédiatement wallaahi lu leer laa la wax Aly Ngouille Ndiaye kon li tax nga xam ne Aïdara Diallo reconnaître l'autorité de la Mouridia reconnaître lu sëñ Mountakha keroog bi ñu la dàqee ngaabu nga daw ñu ñu ñu ñu aar la ba nga génn nga dem toog Daaru Madinatu Salaam kenn déggu la bi nga demee ba jàq ba tiit li ma leen wax leen aw fit nekkul ci moom am na lu ne ci ginnaaw ba nga demee ba nga nekk bëgg a cantaat di ko def Dakar di ko def Madinatu Salaam loo def cantoo de dangaa dem ba ministre de l' foofu laay wax ci ministre de l' intérieur demander autorisation journaliste yi laaj ministre de l' intérieur ni ko Aïda Diallo nee day bëgg a defal ab rassemblement day bëgg a sant mu leen waa Aïda Diallo citoyen la su fekkee ne dina def li muy def te du indi trouble public loolu mën na koo def monsieur le ministre wala Aly Ngouille Ndiaye taalibe bi Aly Ngouille Ndiaye waaw jàng maanaam moom. trouble public entité la dans la religion Mon livre de def du trouble public Mon moo gën grave trouble public ndax wér nañ ni ay dal lako ko dàqi ngaa bu mu dem feneen fu mu di te ministre de l'intérieur jox autorisation aduna mën na ko faa fekk te même bu ko joxee sax aduna mën ko ko deful trouble l'ordre public xam nga lu trouble l'ordre religieux la def dafa troubler l'ordre religieux te yaakaar naa ni état nak les biens la sécurité et les biens des personnes lolu mo wara a waxuma sax nit ndax bu ma la jël ci cadre taalibe nit mën naa wax lu nekk waaye dama la jël ci en tant que état bu taxaw laa wax tey immédiatement boo jëloon sa téléphone ne ko Aïda bul génnati ma doon salaam lii ngay def ak ajustement yi ngay def ak provocation yi na dakk Aïda dootu dootu même bu amoon dëgg du génn waxantuma la bu amul dëgg kon boo fekkee ne wax ne ko bu fekkee day cante te du def trouble public à partir d'aujourd'hui moom fa mu cant dina def moom ndax mu def trouble l'ordre religieux manam trouble public boobu moy trou li muy def mo garaaw moy trouble l'ordre religieux lay la la la ay def day troubler l'ordre religieux te senegal soxla soxlawul loolu te mënees na koo faj bu baax a baax moo man leen ñii conférence yu baax yek bokk yi ana animateur religieux yi nekk ci rajo yi rajo taalibe yeeg yëpp tey ñëpp kenn waratu wax lu dul ci mbir moomu immédiatement mu dakk kuy conférence ku mu doon ana wa ayes mam Cheikh ana ngeen damay damay interpeller rek waye man du tee man limay def man ko moy action bi mom ñoo ngi ci duñ ko wàcc. lu wér laa leen wax Aïda Diallo dootu ko def dootu ko dootu ko ñaareel ko mën a gemb nag wala xam nañu lu bari nag bu fekkee dafa am ñu la xaalis nag nekk ci yoon wi nga yoral la xaalis ba tax ñi mewuñoo yëg si kàddu kooku yàgg ñoo xam bu fekkee da nga am ay complicité am moo xam jigéen la moo xam ci góor la yoonu Sëriñ Tuubaa yi li leen yàlla defal kenn mënu koo dindi muy cheikh seeg sët yéeg lépp xéewal géeg jàmm jéeg tawféex gi loolu ñi iñaan mënuñu ci dara dara mënut dem am na ba nopp yàlla du ko nangu am na ba noppi yàlla ko léegi nag bu fekkee am na ay benn benn santal jaxate santal mbàkke santal buso doonal jigéen doonal góor koo mën a doon bu fekkee am na ay benn benn yoo xam ne rusuñu sëriñ tubaa la tax la ñu am sëriñ tubaa tax ko buruñu ba tax ñu bëgg a gàcceel yooyu murid yëpp xamee nañ leen ndax média yi léegi ku génn ñu xam la nit ñaa ngi dégg lépp leen wër ni ñu ñu wàcc leen bu yàgg dañ leen a jëppi ba xoolatuñ leen am na fi nag yoonu murid nag bu dee téeméer jàpp ni yéen ñiy wax nag di dal ci yoonu murid lu nekk ak tariixa yi leen jàpp déedéet demewul noonu bu yoon wi dee téeméer jàpp leen ni 10 pour cent la ca wala 5 pour cent bu leen nekk bu laawaale kilifa yëpp ba barki démb gis naa ko wëlbatiku di wax kenn mosu koo dégg muy dal ci kaw yoon wi naan kenn gëmu fi Sëñ Tuubaa di wax nga xam ne ñëpp la boole sànni ci biir saak bi ndax nee na dafa am lu ko naqari ndax li ñu taw di seetaan Aida Diallo yow moom wax nga li nga wax mais man jàppewuma la ku ànd ak Aida Diallo jàppewuma la ab taalibe li ma la jàppale mooy koo xamante ni bii noonu yoonu murit la ndax ni nga waxee ku ku doo ñëw boole ñëpp ci benn saak mel ni yoon bi te yoon bi la la crème boo ko doon seet ñëwul ci murit boo wëree Touba tey xam biir réew bi xam bu baax li ma la wax kon bu fekkee da wax da ngay communication da ngay jottali ba ràññale ba xam ni ñu di wax waaye bëgg ñëpp def ci benn saak déedéet ñi koy def taalib yi soog a dugg ci yoon bi sax xam nañ ne tappalekat yeeg diilkat yeeg ñi nga xam ne xaalis leen yitteel ne ñu ngi jéem a gàkkal yoon murit te sant Mbàkke wala jaxati wala buso wala ku mën a doon nit ñi xam nañ leen ñëpp rek dañ leen di bàyyi ñu dem ci liñ ñu dox suñu dox kon loolu lu leer nañ nit ñi defuñ dara jàpp xam na te bis ni ki xam fu ñu nag mooy du jëmmi ay Aïda Diallo li ci bon mooy Serigne Touba dafa taxaw temm ci bëgg ni lan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al yaa hadiyan radaa dafa ñaan yàlla képp ku boppam di jëm kaw tànkam di jëm suuf nga mën a dugg ci lislaam bokk ci xeetu Muhammad yàlla yërëm la ëllëg Aïda Diallo nag moom taxaw temm ci ni Serigne Touba li nga ñaan man contraire ba laa bëgg damaa bëgg ànd ak saytaane mbooloo mi li ci ëpp nan dem sa c'est taxaw taxaw tànki sey nga taxaw li mboolem ñu jéblu bokk ci Sëriñ Tuubaa yaakaar ko di taal bi mënoo ci moom lu toll ni tarfata ay nin yaquudu lii wala yaquudu minni illa liman shitu bi idni minni Sëriñ Tuubaa ko bind yaquudu lii yaquudu lii wala yaquudu minni illa liman shitu bi idni yàlla defal na ma man Sëriñ Tuubaa mboolem lu ñëw ci man ba noppi day wommat di ma indil day gindi coggal gi ñëw yàllaay wommat de Sëriñ Tuubaa wootul kenn yàllaay wommat nit ñi di ko jox waxoon naa leen li nu boole yàlla defuñu ko defaluñu ko lu jar mbool sëñ yàlla mooy dem wommat ak coggal ñoo jox sëñ Tuubaa bu ñëwee ba noppi nag sëñ Tuubaa nee kenn du fi jógeeti xanaa mu neex ma maanaam ku génn ci coggal rek man lay neex te sëñ Tuubaa du jël du jël texalin ba di ko di ko texeetal su fekkee ni àndul ak saytaane kon li ma wax foofu mooy bu leen tiit maanaam mënoo ronqat lenn ci yoon murit li may li tax ñuy wax nii mooy liggéey bi sëriñ Tuubaa bëgg léegi ci lislaam ñi duggagul ci yoonu murit ak ñi nga xam ne jébbaluguñ ak ñi nga xam ne doonuñu jullit sëñ bi bëgg a tibbaat ci mbooloo moom dugal ci biir àjjana yow a tibb ci mbooloo bi yóbbu sawara foofu la wax ji nekk mais yow du sa jëmm yi nga dem dem biir Dakar fu ne nga wër ñu def yoo xam ne xërëm leen a ba nit ñi ñëw topp sa ginnaaw ñooñu rek ànd ak yow dugg sawara loolu la looyu lànk dañ fiy nekk liggéey suñu lànk moom du àjjana lañ dem doo leen yóbbu sawara lànk lañ def loolu foofu la maanaam bu leen digg jëmmi Aïda Diallo amul importance li muy def mooy li muy li mu li propagande bi muy def ak ñi nga xam ne ren leen alak nga xam ne am na ñoo xam boo leen xoolee sax sa yaram day nga xool leen ñii nan la ñuy mën a toogee ci kanam daw si wallahi lazim xool leen vidéo yooyu rek di ci xool loo xam bu ñu xoolee sax dañuy xool mais dañu toog mais xamuñ ci lu ñu nekk parce que xam nga ne lii du tayef loolu def bëgg xaw a tilim wala seen passé xaw a tilim ñu dugg ci yoonu nag créer ay yëf woote ak ceex lu ne ñu dugg ca ngir lan ngir laavee ko la nga xam ne mooy seen démb ak seen juddu bu ñaaw wala leneen ak leneen day am mbir mi yemul ci ay dédaalu rek ay lobby yu bari la dañoo bëgg a song xam nga lii lépp boo amee ci yoonu murid coow li li sëñ yëngu yëngu yëngu yokku rek yëngu yëngu yëngu yokku rek yëngu yëngu yëngu yokku kenn muntatee yoon murid yokku sëñ Tuubaa kenn muntatee mu yóbbu ñu àjjana li ngeen bëgg munta am duñ ko ci bàyyi nag am na loo xam nag nun noo koy fajal suñu bopp kon loolu bëggoon naa mu leer nañ Aly Ngouille Ndiaye ministre nga taalibe nga ndaw si lii muy def waxuma la sax ci affaire bu wala diine wala dara mais kuy troubler l'ordre public dans ce pays là dañ ko war a arrêté te mu ngi troubler l'ordre public laïcité bi ñu wax aw tur rek la fii l'islam fi dund de du tur rek la état lay aw tur dong la waaye nit ñi li dund mooy yàlla la ñuy dund ak yonent bi la ñuy dund yéen xam ngeen loolu sax xam ngeen état léegi am na ci loo xamante ne bii lii mel nii nag bu bëggee dem ci góor jigéen ñi nag dem ci feneen nag dem ci feneen nag ku na fa yem lesbienne nag mais yoonu Serigne Touba moom dafa am ay gardien gardien tàmp temple Cheikh Mountakha mii ku ko rusul ku ko munta xool rus ko wallahi la boo demee ngaa dem sa war ku ko munta xool rus ko laa wax boo demee daj na lu ne takk na ndigam lii lu ne daj na ko ci àdduna te sëñ Saliou koo gis tarbiyewu na la lu ne na ko ba yàlla dénk ko yoon wi adduna sëpp waxuma la murit de waaye adduna sëpp masaalikul jinaan barki démb fa xool tool sedd ñëpp jooy nga wëlbati ko taxaw yow bëgg rek jël sa jël sa jël bëgg sa say salt rek di xëpp ngi koy wax rek bis bi yéen ñëpp dinañ topp Saxum Touba même bu ma noppi woon fi dol suba mën na maa defaat benn poste ci deux minutes léegi léegi léegi waxtu wala laa koy def Aïda Diallo yaa ngi nga àndal ak ku mën a gemb pare leen wallahi lazim moyetuñ la Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Mourtala Mbacke li tax ma di tudd mooy xam naa sab taxawaay ak li ngay liggéey sëñ Tuubaa sëriñ Mourtala am sëñ Abdoul Ahad boo gisee ma ko mooy danoo mas a toog ba ci yàgg nu dem ci sëñ Saaliw ni ko danoo bëgg defar daayira boo xam ne mooy sëti cheikh yi sëñ Tuubaa yi seenu daayira bi ni tuddal leen ma ca cheikh yooyee ngeen di wax ñan ñan sëriñ bi ñu tóllal ko ni ko diw sàngam diw sàngam wax ko cheikh ya mun leen akasa daal di leen ni tuddee naa daayira bi nax ju xadaa ilhaaji nax ju xadaa ilhaaji naaju xaddaay la xaj li sëñ bi tuddee woon daayirab siti seex yi sëñ Mourtada nag li tax ma tudd ko danoo woon ci këram ginnaaw loola nu dem ba këram mu dinu teral ni moom ci daayira bi la bokk ci taalibe yooyu la bokk te ndaamaatu togg ak ñëpp sëñ Mourtada si yaa ngi may ñëpp a ngi lu tax lu toll noonu ñoo xam ne seen maam ñoo taxawoon dara sëñ Touba laj leen leen tam jaraloon mu jaral leen ko nun nu toog dem ba am turu woo bëgg ba maa ngi woo képp koo xam ne askor nga am nga looy tekk yoon mu sa maam nga ni sëñ Touba ko seexaloon te ñu mën koo vérifier muy wér lu wér cëng maa ngi lay xam ne tey maa ngi lay maa ngi lay tàllal loxo bu daayira boobu nañ ko dekkal waxuma nag mbirum Aïda Diallo tax maa wax de leneen ak yeneen a tax ma wax li jëm ci lépp développement murid laa wax waaye jëmmi Aïda Diallo ci la bokk maanaam appel bi def naa ko ci képp koo xam ne da nga mën a taxaw tey ñu seen la télévision ngay woote ne sama bisu maam la wala ngay woote ne looy woote di ko woote ci turu sa maam jooju ànd nu koo mën a doon boo dee sët bu mag ak boo dee sët bu ndaw boo dee góor jur jigéen maa ngi lay woo daayira na ju xadal xaj ñu dekkalaat ko te bu ma jógee ci lii dinaa wax lépp man dinaa woote assemblée générale ba lépp ku mën a jiitu na jiitu waaye nañ do déclaré loolu jotewul nag ay lii dara waaye lii dafa tax dafa am loo xam ne saa yu xew rek yàlla buy defar day mel ni ko yàq lii war naa mën a judul loolu daayira boobee nga xam ne sëti sëriñ seex seex yëpp daayira bu ne gis ko fi daayira bu ne am na si rek bu am na fi daayira bu am na fi sëti sëriñ Tuubaa yeeg ñëpp daayira bu ne am na ci biir yor mu kon nag daayira sëti seex sëriñ Tuubaa nun bu neexee lan dootu xew ana moom sëñ Cheikh ana sëñ Cheikh Jëmb Fall ana waa ko sëñ Saajën ana waa ko sëñ sëñ ma Jow Paxa ana sëñ waa ko sëñ Adama Guèye ana waa ko sëñ ma Dem ana ana ana ana ana ana ñoom ñëpp ana ana noonu noonu ñun dafa mel ni nekkatul existatul te ba dara dul dara ñoom la woon ñoo taxawoon ci ginnaaw sëñ Tuubaa jox ko seen i bakkan ak seen lépp seen alal ak seen lépp tey lii xew yaakaar ngeen kenn doon na ko fekkee ñoom kenn Thierno Birahim Ndaamal Daaru yaakaar ngeen kenn ñu mën a yeb sëñ Tuubaa lu jëm yoon ci wetam kan moo ko ñemee woon laa la wax sëñ Abdou Karim Touré kan moo ñemee woon tey li nga def ko am na ñoo xam ni kurus la ñuy yor baatin fasaati falax la am ñoo xamante ni bii léegi ci dañ koy jëflante ak yow ci saa yër bokki murid yi yéen ñi nekk Canada woo ma ñu nekk Italie woo ngeen ma ba Brésil fenn fu ne woote nañ téléphone bi damaa mujjoon fay ko dem ba léegi maa ngi leen di xam ne lii may ndox wallaahi la ci ci teg billaahi lazim wallaahi ay rajo dootuñu la may tarfata ay nin koo xam ne nag sëñ Tuubaa ñor na la tey dem nga bay tudd maam Cheikh dem nga bay tudd maam Cheikh Ibra nga xam ne yow kon fi doolu yow sa bakkan teg nga ko ci xottu gerte lii la sëñ Fallou Fallou Mbaor wax te muy lu wér mu nekk ci combat bi guddeeg bëccëg loolu mu la wax mooy dëgg dem na nga bay laal laal laal nga fu ne nag bu nu bañ a laal lool loolu yëpp pour provocation ak it ñi lay jiital ñoo ne laal làmbal fee ndax fépp mu nooyee mais làmbal foofu ndax ñooñu làmbagoo leen làmbagoo Baay Faal yi làmbal danga nangam daj nga nag wallaahi daj nga man nag li may wax mooy kenn ëpp lu ma ci yoonu sëñ Tuubaa li ma wax waxee ngeen jéggal ma li ma bëgg wax rek mooy maanaam kenn ku ne li li ngay wax di ko sukkandikoo di ko sagoo ci njoon sa ñiy woote journée culturelle ak ñu woote ay cant ñiy woote nangam ñiy woote yéen ñëpp kenn ku ci nekk woote baa ngi nii. première nag kenn jiituwul ci ministre de l'intérieur bu la neexee tey nga def déclaration woo Aïda Diallo ni ko arrêté mu arrêté wul nag noonu danañ koy arrêté moom bu ko neexee ak bu ko naqaree ak ku mën a doon nag kenn mënu ci dara dañ koy arrêté wallaahi la sam dañ koy arrêté billaahi ndar ba cees ba Matam ba Fuuta ba Ziguinchor ba cees ba fenn foo yaakaar ba Dakar waxaale wu ko sëñ Abdou Ndiaye Maraxib diggante Riidus ak Pikine ak Géejawaay yéen ñëpp ñaari tali Mermoz Fann bàyyiwuma kenn ay da jàlloo mayatuñ la nga sant fenn fenn taxaw lenn mayatuñ la ko waaw sëñ Maxtaar Diop Hakim ci Amérique bàyyiwuma kenn mboole foo ay nekk bu ma nee ñëwal ba mu joxe oto nit ñi dugg ci la ñëw waaye ay da jàlloo mayatuñ la lool. am na nag lu ñuy def suñu digg suñu Muntaxa bu soob yàlla loolu moom léegi danaa leen ko wax incha allah suba da ngeen xoolaat Saxum Touba ngeen suivre li ngeen wax bu ngeen topp ko dinaa leen jox indication yi bu ngeen toppee rek dinañ ko tasaare fépp ñu ko yéen ñi nekk ci télévision yi rajo yi tam te nga xam ne mën ngeen a jottali message bi ngeen jottali ko ko jottali dina dem ku ko jottali dina dem waaye kenn ku ne sa war a gor la ci loolu laa xam ko ma taxaw tuuti dellu si eggale yéen ci li nga xam moom laa bëgg wax ñëpp laa wax kenn tegu sëñ Tuubaa li ñu wax dëgg la rek dafa war a jeex tàkk bis dëgg daal la war a jeex ëpp na ëpp na ba ëpp man nga waxuma sax wala yu yàlla sax waroo koo jàkkaar la moom naan ko yaay sëñ Tuubaa waxam tuba la jigéen ñuy sukk ci moom dina am naan ko yaay sëñ Tuubaa yaay suñu sëñ Tuubaa ana loolu fu mu tege Cheikh Sidi Mokhtar sax kenn waru ko tudd tudd waxam tuba la rek jëmi si maa ngi koy yëpp ña nekk ci sëñ bi sëñ Cheikh Tola yéen a ngay dégg yéen ci web sëñ bi yéen ñëpp yéen a ngay dégg sëñ bi dégg ko quoi yéen a ngay dégg kenn ku ci nekk dama ne bu fekkee li ñu wax sëñ Tuubaa dëgg la dafa war a jeex tey tey tey tey tey fu mu tege sunu bakkan la bu amul sax bakkan bakkan amu ci waaw bisimilah. Hmm, mbokki ca tànkoot yi sama taalubee bopp yi mbokki birit yi yéen waa Sénégal ndigal ak si kër Serigne Bass Abdou Khadir porte parole lu xalif général bi murit nee na xalif bi nee na ko dama wax ni ma ko ni ma waxi seex yi nañu ko teg suuf ma waxati ab seex loole laa bëgg daal di jëfe ci saase bàyyi naa ko dootuma ko wax seex sépp na laay waxal baw kenn bu ma dégg di képp koo xam ne maa la seexaloon na ni ab seex nga wala na di ko dox ndigal laa ko teg naa te sax ne ko man sax de xam naa sama seex ji bu ko bëggee may dootuma ko tudd mun ma dégg yow sëriñ Saali wala seexal lii nag laay bëggoon a yëgal ndigal loolu laay jëfe képp ku ma seexaloon bu ko doxati bu ko doxeeti fàtte ko nañ dellu si géej di samay taalibe yi ñu ànd liggéeyal Serigne Saliou wasalaam. waaw li ma ci bëgg a wax foofu mooy ginnaaw bu ngeen xoolee élément bu ba noppi li ma ci bëgg a wax mooy Aïda Diallo jigéen la day wodd man lii ma def sax waruma ko woon def Sëriñ Tuubaa li mu yor ci jàmbaaru jigéen li mu yor ci ay jàmbaaru jigéen taxawaayu soxna Adja Aïcha Umu Salamata nen nañ nen nga xam ne daanaka mën nga leen tëkkaleeg ay jàmbaaru jigéen ci anam bu nekk lii jigéen ñi sax yéen a ko waroon rek la ndax Aïda Diallo gën leen a muus gën leen a yow ëpp leen fit jigéen ñi Sëñ Tuubaa yéen laa fu ngeen nekk nag Amérique foo ngeen nekk yéen jigéen Sénégal lii góor sax waru ci woon a wax góor waru ci woon a yëkkati kàddoom maanaam tout tànki Sëñ rek war nañ ko mën a lijjanti kon bu kenn ni nañ ko déedéet benn jigéen bu waxati jigéen ni yéen ni wodd moo koy def jigéen buy takk séer ba noppi mooy def lii kon ana rolu jigéen kon foofu benn jigéen benn kuréelu jigéen rek mën nañoo fekk air jàll fa mu nekk te wér na nañ ko benn jigéen kon loolu bëggoon naa ngeen xam ko yéen itam mboolem jigéen ñi nga xam ne su ko maam jaara mi ngeen di nga xam ne moo leen gëral i bët gëral seen lépp ak yi tuddoo ko jigéen koy def posé naa leen question jigéen mooy def lii góor defu ko te wér na man jigéen sa tubaab ñoo man góor yeneen góor bir na loolu bir na man beneen bi ci des li ñàkk xamante gi ak ñàkk teggin gi ak ñàkk war ma gi sëñ Muntaxa xool leen ko maanaam ba sëñ Muntaxa toogee ba léegi bi mu defee génn boobu mu génn am na ci ñi ay Aïda Diallo koo xam ne ngi ci kaso bi moo wël di ko def benn audio ba nit ñëpp jot ci di wax jëmali sëñ Mountakha ay wax yu doy waar ñu bari jot nañ ci xoolal googu ñàkki teggin nga xam ne moom reconnaître woon yoonu moom wax ji bëgg bëggatuma sax dellu kenn ci ñu ànd ak Aïda Diallo bi sëñ Mountakha waxee li mu wax nañ ko sànni ci sëñ ba ba noppi kooko moo jóg def ab audio wax wax joo xam ne kenn mënu koo dégg jëmale ko ci sëñ bi nun danoo danoo juum mais boobu lañ leen war na daggate wallahi ndax boobu gisuñu ko waaye heureusement ko foofu moom jàpp état bi jàpp na ko tëj ko ci kaso bi teew bu ñu la xamee ne la wér ni saa saa saa loolu ni tege bët du baax ci yow xoolal kooku ñàkki teggin beneen bi seen ngeen ni ñëw ba seen ndoxa di ko enregistré Saliou Samb loolu nag maanaam ndof yéen amu leen intelligence ndax bu ngeen xamoon sëñ Cheikh Saliou ci isolement gi ak li ko yitteel ak li muy dund ak li muy dox maanaam ngeen defee ni man ngeen man man maanaam nit day amub sëriñ yow kuy sab sëriñ xanaa dinañ la digal nga def ñu tere nga bàyyi. yoonu mu kan moo ci mais xanaa di nga am kenn koo xam ne war na la mën digal def nga teral bàyyi nga wëlbati ko nag léegi dem ba ci sëñ Cheikh Saliou yaakaar ni foofu war naa mën a nooy foofu ñagas lool nga wëlbati ko dem ba Porokhane di wax ni sëñ bi jox sëriñ bi laalul benn dërëm bu ko ay jàll jox ma wax leen ko tey yoonu mujj wii lam doon wax naan sëñ bi ne na ko na xool sa dara du ci dëgg ñi fekk woon jotaay bi nee naa leen lu état ni muy xame ne la ñuy xame li la rek ump nu ci lenn lenn sëriñ bi laal ko ci li mu ko joxati am na ñi nga xam ne ñoo di bokk na ñoom moo xam ñu wër sëriñ bi du ñëpp wala feneen fooy mën a nekk am na ñoo xam tey jii ci yoon murid lañ nekk ay bokk lañ xam nañ leen duñ eggagun foofu mais dañuy màtt di ëff ci yoon wi lañ nekk yor ay responsabilité dañuy màtt di ëf sëñ Tuubaa leen man maa ko wax sëñ Tuubaa ñoru leen du ñëpp de ñi may wax dama jàpp leen ni toujours wu ma te li wax xam naa ko te buñ ma fonto ko wax ñoru leen laa wax dañuy màtt di mel ni kuy défendre yoon wi te du dëgg ci ñoom am na ci ñoo xam ne sax dañoo ànd ak ñeneen ñoo xam dañuy xeex yoon wi ba noppi di ko nëbb te xam naa lépp loolu am naa ci lu ma leer dañoo ànd ak ñenn ñuy xeex yoon wi ci wàllu diine ba noppi di ko nëbbu mel ni sëñ bi lañ ànd rek te ànduñu ak moom xam ngeen ma xam nag xam naa li mu la wax baax baax te man dara ñoruma fi ñu toll dara sëfuma dara dara dara dara sëfuma ba dara sëfuma soxluma dara dara sëfuma laa sëñ Tuubaa rek yaa nii rek lay mën a demee mu lànk laa def ma damay lànk na ngeen arrêté nag wallaahi lasim na ngeen arrêté man xam ngeen bu ma waxee wax naa rek am nañu bokk ci yoon wi laa bokk ci yor sant Mbàkke wala Buso wala keneen ba noppi nekk ci diine ji di jéemal am lu ñuy lubal am ñoo xam ne dañu mel ni kuy défendre yoon wi te défendre ñu yoon wi am na lu ñu dañuy wax ci kaw di wax ci suuf bu nit ñi sax am na ci ñoo xam ne mënuñoo xalaat ñooñu ni noonu lañ def mënuñoo xalaat ni ñi ko leen waxoon tey ni loolu xam nag dinaa ko waxaale fii ba la maa jeexal ñi ngi song tarixe yëpp moo xam bu murit la boo xam ko ne ñooñu soi-disant des intellectuels jàng ci wàllu nasaraan ci tuuti diine dem Google mën a faire ijji mën a nga xam ne prononciation bi sax da ngay dégg ni yàqu da ci am ñoo xam bu ñuy wax da leer leer ni ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ci benn domaine nag maîtriser ko laal bu ñuy wax nag ñi nga xam ne yeewuñ ci xam-xam waaye wax ngi yàq ngeen ñëw dimbaluñu tarix yaa ngi ñuy bëgg rey di exploiter nit ñi ñoom ci seen bopp ñoom ñi def loolu ñenn ñenn ci ñoom du ñëpp ñenn ñi koy def dañoo bëgg a dund ñoom mbooloo lañ bëgg ak bëgg ñu leen gëm ak wane ne ay intellectuel lañ ak ñi nit ñi ba di dal ci kaw naa leen mën naa leen wax kenn par kenn am na ñoo xam man maa génne seen i wax parce que boo déggee seen i wax ñaari yoon nga xam ne ñii maanaam wax ci lislaam ak jubbanti nit ñi ak xam-xam taxatu leen dina wax maanaam bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yaa fi toj wala di diw ni mu bëree xam-xam wala sa waay war nañ koy déglu demal ci internet bi la ma la wax boo leen déglu nga xam ne ñi jegewuñ xam-xam sax far xam-xam du dem google wala boo demee google ubbi loolu mémoire bu baax la mën ngaa am mémoire dem google xam la fa nekk lépp dem ci benn sujet nga nekk fa su ko defee sénégalais nga xam ne am na ñoo xam ne amuñ sax certificat ni xult di la xool cay diw dégg wax nangam nangam bu noppee nag laal ci tuuti dina yonent bi nee na fii nangam nangam fekk dara ñi nga bëgg récupérer ñoom ñi nga xamante ni bii jébbalooguñ wala dugguñ ci lislaam wala ñoom nekkuñu fenn amuñu benn tarixa buñ bokk ñooñu lañ bëgg récupérer te li ma leen wax dinaa ci dellu si juge par juge li ma leen wax nun nag li li li ma leen waxoon rek penn perdue la soxari sëñ Tuubaa wala njabootam wala li ko yàlla defal ak li mu defal ñu teraanga jeeg jàmm jéeg xéwal yéeg jëm gi kanam lii dee rek ci mujj waaye dara mënu ci yàq dara dee rek ci mujj ñaareel ba itam amu ci kenn kuñ mën a détourné maanaam man mii yow man waxuma waaye ki gën tuuti ci yoonu murit te positif jëblu sa yu toogee jàkkaarloog yow ci YouTube bi ngay wax wala ci réseaux sociaux yi soo doon wax di théorie ba aduna tukit mëno wañ ci ngeum gi ngeum seigne touba tous da ngay wax ba noppi mu wax xol sa way <laughs> day góondee di loolu la gone yi loolu lañ wax gone yépp du tubaab de gone yépp dañ lay déglu ba nopi yow mi wax professeur wala nangam ñu déglu la ba nopi <laughs> ngi xol sa way da bëgg dund rek loolu mo am té loolu xam nañ leen fiñ tol man bayiwuma dara aw man 24 sur 24 ci loolu la nek di bindé ka gëstu ak taxaw ci yoonu mu rek di ñaan yàlla nag daje ci mu serigne bi soxlu ma ci lenn kenn ngir mu sëñ bi laaj soxla dajul eggale ko te daje ngërëm bokk bu joppee nag bu ma sëñ bi doon am tuyaa ba ja wala lii ma la ko fayee ma bokk koog ñëpp nag maa ngi ñëpp nañ ko bokk kon lii laa bëgg ñu wax ko ñii maanaam point point par point la am na ñoo xam ne yéen ñi nekk ci bitim réew di seetaan réseaux sociaux yi da def attention am na Sénégal léegi ay ay ay ñoo xam ne dañuy wax ci diine ñenn ñi français lañ jàng xam tuuti ci diine wala ñu dem Google gis fa nañ koy firee wala addis ñu ñëw taxaw di théorie wala ñu spécialisé wu ci lenn lo xamante bi dañ ci spécialisé suñu ñëwé yow nga defee loolu bu nga top leen dara du ci dëgg li yalla defal sëriñ Tuubaa kenn mënu ko dundi yaqudu li wala yaqudu minni illa liman shi'tu bi idni minni xawma ma gan coggal ngeen di rëgët waaye gi ciogal kenn du fi rëgëtal dara loolu sey ba ngeen noppal té ci biir yoon bi dafa am étal télé yu doon dàq fop gën leen xam gën leen xam dàq leen jang xam yi ngeen def yépp stratégie yépp xam nañ ko amna ci ño xamni dépense dong lañ koy wuté bu téyee ñu def fee nangam bu du xew dem fee dem fee fu ne ñu dajaloo fa def fa dara mbir mi du ay yooyu ay action la Serigne Touba ay action la doon def ba lii am bu leen yaakaar ne xel mu rëy bopp bu rëy toog ci réseaux sociaux yi di jéem a détourner nit ñi loolu mënut a tax loolu du sotti mënut a am loolu laa doon fi may jeexal wax nag mooy maa ngi koy wax wax naa ko ñëpp xuddaamul xadim sëñ Mourtala sëñ falu Fall Mbor Dakar wax naa ñëpp bàyyiwuma kenn sëñ Abdourahmane sax ahlul xidma maa ngi leen ko xamal. bàyyiwa kat xam ngeen safinatu amal nga ci biir kenn desul laa la wax ni lépp lépp lépp ay da jàllu mayeetuñ la bi si cré Tuubaa moom waxaale wu ak ngaaw waaye mayeetuñ la tey nga jóg Dakar di sant mayeetuñ la nga du tudd Sëñ Tuubaa ci lenn du ci xasaay du ci lenn sëñ Saliou ñëpp monsieur le ministre nag mën nga koo régler léegi waaye li wérti wóor daal mooy balaa ñetti fan balaa ñeenti fan na ngeen déglu di ngeen dégg ñun ñëpp nañ dajaloo dajaloo bi nag ça veut dire que moom loola mooy ñuy fixé kii bi ni tey lay jeex mbir mi tey lay jeex képp ku ko dégg nag yaa xam wërësoo gi nga nekk doon commerce wala nga nekk Sandaga wala nga nekk marché Ocass comme mën a doon bu fekkee ne nga Serigne Touba jaral na lu toll ak fu ñu ko mën a wootee noo nga la fay xaar góor ak woon nag nga sant nga doon ab xalifa ci kër nga mën a doon noo ci mën bokk ñu moom day bu jeex nu dem mooy xettali ji doomu aadama yi li Serigne Touba bëgg ci ñoom ba dundu gu nga sëñ Mountakha mi nga xamante ne bi ba mu fi nekkee ba léegi ba mu toogee ba léegi saa yu nekk rencontre ngir ay jëf ak i action Masaalikul Jinaan université bi ak yeneen ak yeneen yu mu mënta wax bis bu ñu gis loo xam ne kenn ku ne même ñi dul murit laa la wax dañoo dem ba egg di wax si ñun xaalis yow nga bëgg di wëlbatiku nag xoolal rek loolu ak xilaafa goo xam ni ba kii cat du ci dugg mënoo cee dugal cat mënoo cee dugal cat ayda tekki woo dara tekki woo dara laa la wax ah, yow respecté woo suñ pexe ma becco ma nga noonu yaakaar yaakaar sax wala gëmoo ko boo ko gëmoon doo def lii li xabru bi nga xam ne fa sax jaar yere ngeur barab bo xamni ken kenn fa ken ngeen mom la siar wul dug nak di dug ci bir Dakar nga xamni legi amna am na bi ay lobby lañ ñolay financer bu fekke ken da la yoroon xaalis nak wala nga am ko séqal leneen lo xamni da ngeen ko séq te koko ñimi muy wut wax nun dina la wax li lay wax fay jeex wallahi lazim na deglu ko ñi nga andal nañ ko deglu billahi lazim ma ngi koy xamni murid yeb ma bayu ken sëñ mu ndax dina koy lii pare nañu pour yow jeuf fofu la mëna yam bu subaa wala gannaaw suba na ngeen topp Saxum Touba dinaa ñëwaat ngir wax leen bis bi incha allah ak sëñ Fallou Fall Mbor ñu wax leen bis bi ak ni mu demee yëpp nu mu gën a gaaw waxtu bu mën a daal di ngeen nekk pare daal bu ñu la wooyee rek bu la kenn jiitu fa jeex na amaa ñi nag man maa ngi Touba keneen nga ndar keneen nga feneen tey bu ngeen ko déggoon suba muy sant ca Mermoz wala feneen keneen murit yu fa nekk bu mu ca dal bu fekkee li ñu wax dëgg la maanaam ñu xaar di woote bi moom lancé nañ ko ba noppi amatul xaar fi ñu toll amatul xaar loolu laa doon wax jër ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu incha allah rabbi ngeen topp nee leen minute bu nekk sax ci guddi gi sax mën ngeen a gisaat leneen incha allah rabbi kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mën ngeen a dem ci Saxum Touba ngeen déglu ko ci su ngeen ko déglu ngeen jàllale ko su ko defee ñëpp déggandoo ko ñu xaw ñu waajandoo ko incha allah jërë ngeen jëf